Sénégal amoon na habitude ñu def ay dialogue mais am na benn particularité boo xam ne gis naa ko par rapport ak dialogue bi nga xamante ne enclenché nañ ko avant mooy c'est un dialogue boo xamante ne nii c'est mooy clivant et plus inclusif pourquoi je dis que c'est moins clivant et plus inclusif moins clivant parce que y avait pas en tout cas comme format d'antan bi nañ ko doon constaté dans un dialogue boo xamante ne nii les prises de parole ça fusait de partout ku nekk jël parole wax ñii dañuy ñëw sax détourné complètement sur les thèmes de référence di tàggale président de la république ou mais je me rendu compte que avant-hier dialogue bi c'était un dialogue boo xamante ne nii donc on a donné la possibilité ñi nga xamante ne te jii nii ñoom ñoo les spécialistes en la matière euh, à travers organiser nit ñi en atelier pour que ñu discuter entre autres sur des questions yi xamante ne nii buñ ci penché woo on peut redresser en tout cas ne moom mooy le fonctionnement de la justice. par bel également. aux partisans de Ousmane Sonko de Pastef. oui cest par bel maanaam dañ leen a tibbal lu bari sax ci ci dialogue bi. par rapport ña fa teew ñu ci bari. par rapport aux invitations parce que yaa ngi dugg ci format bi en tout cas des sénégalais yoo xam ne ñu ngi fustiger la présence des dañ ko fermé woon ci benn débat d'initié bu ñu waxee justice ñu ne ñoo la justice ça concerne les avocats les magistrats les universitaires parce que la justice elle est hermétique donc euh, le langage est un peu codé c'est un peu ésotérique donc ñu ramener que à un débat d'initié alors qu'en réalité en tout cas li nga xamante ne constaté naa ko mooy le fait de donner la possibilité à la population ñu contribuer joxe seeni seeni proposition en tout cas par rapport au fonctionnement de la justice loolu nekk na benn élément bu bees boo xamante ne en tout cas neex na ma ci format dialogue bi maintenant quant à la matérialisation des grandes décisions yoo xam ne dinañ ko jël ci dialogue bi donc là je donne ma langue au chat à partir du moment en tout cas nous en sommes présentement à la phase des propositions propositions yu bari na parce que ku ci nekk ci ñun muy en tout cas économiste bi muy am nga en tout cas benn perception boo xamante ni amoon nga ko sur la justice que ça soit une perception positive boo am wala une perception négative mais justice de principe œuvre humaine et de de surcroît faillible mhm. maintenant bu fekkente ne dem nañ au fond en tout cas du débat je peux en tout cas apporter mes mes propositions par rapport ak li nga xamante ne ni yaakaar naa ne buñ ci jëlee ay doon sooxee par rapport à la question de dañuy xaar ci moom en tout cas lépp loo xamante ne tey jii nekkoon na ay pratique ñoom yu ñu doon dénoncé ci ci ci temps Macky Sall ñu def le tout en tout cas a jaar ci voie boobu noonu. def de telle que en tout cas dénonciation yi nga xam ne ñoom doon nañ ko def ñu def seen kéemtalaay kattan pour que en tout cas les préoccupations des Sénégalais pour une justice en tout cas impartiale. indépendante en tout cas soit soit soit soit mm-hmm. je ne défends pas en tout cas l'actuel régime mais puisque nous en sommes présentement à la phase des propositions jéem a xool en tout cas quelles sont les grandes orientations yoo xamante ni buñ dégager on en tout cas une justice sociale boo xamante ne nii plus préoccupée donc par la résolution en tout cas des préoccupations du peuple. du peuple bien sûr alors euh, oui Cheikh Oumar Bamba euh, euh, nga jiite MODAP coordonnateur déjà ci benn kuréel bu bokk ci ci parti bi teg ci nga nekk ex ex détenu même si gisuñu la ci assise de la justice yi mais gis nañu fa ay ay détenus yoo xamante ne bokk nañu ci débat bi est-ce que être détenu privilège la ba war a bokk ci débat bi nga xam ne dañuy waxtaane justice. bu privilège. damay ragal ne droit la ndax. waxtaan. xam nga léeg leen maanaam ndax euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci corps justice les magistrats les avocats les huissiers ba mu jeex ñooñu ñooy acteurs yi justice. mais nag ki nga xamante ne moom dafa subir lu ma wax justice mais injustice boo xamante ne justice bu deful liggéeyam moo ko waral kooku mooy ki gën a placé ñëpp ngir mën a wax ci li nga xamante ne moom la dund. te justice boo xamante ne jaarul yoon teg ko ba tax na loola day tax la ko dal mu mën koo leeral sénégalais yi ban yëg ne ñi fi nekkoon lii ñu doon def jaaduwut mu mën a taxaw ne kon tey plus jamais ça kon jàpp naa ne détenus politiques yi amuñ kenn koo xamante ne moo leen gën a yey ci dem ci jotaay boobee ngir wax la xamante ne moom la ñu dund ak justice réew mi man personnellement. Mhm. dund naa ci ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon acteurs yu justice loo xamante ne bëggatuma koo gis ci réew mi. bëggatumaa gis ab juge woola euh, di la topp appel à l'insurrection euh, atteinte à la sûreté de l'État ba pare nga ñëw mu woola enquête war laa déglu au fond di la laaj ay question politique le juge Mamadou Seck man bi ma wooyee enquête bi ma demee li ma doon laaj mooy est-ce que ce qui est arrivé à Ousmane neex na la loolu lan la am ak ak procédure judiciaire ce qui est arrivé de de de mars 2021 à nos jours pour certains des patriotes et du fait d'une injustice la personne de Ousmane Sonko de cet avis est-ce que xaar ci ci juge noonu da nit ko dund ñoo ko mën a wax praticien droit yi est-ce que ñoom mos nañoo dem ñu déglu leen au fond bañ mën a wax man dysfonctionnement yi ci nekk ñun ñoo ko dund ñoo ko war a mën a leeral kon ña fa nekk ci ay ex-détenus yi ñoom Jim Hannibal ñoom Cheikh Bara Ndiaye foofa seen place la te it am nañ droit à la parole waaye rek may ñëw ci euh, leadership bi nga xamante ne moom la le président Bassirou Diomaye Diakhar fay di incarné ak le premier ministre Ousmane sonk mooy leadership boo xamante ne dafa ànd ak xikmatu maanaam sagesse. Euh, sagesse su kilifa mooy savoir placer les hommes qu'il à la place qu'il faut savoir euh, mettre en pratique les priorités par ordre loolu bu ñu gisee régime bi fi nekk bi mu commencé poser ay actes ba léegi. ku ne xam na ne am na cohérence bu muy doxee te da nga xam ne ñii vraiment ils sont inspirés mooy question yi gën a ñor Sénégal yëpp ñu ngi ci taxaw. tàmbale ko ci justice bi dafa am ñett. en terme de priorité jàpp nga ne assise de la justice bi moo waroon jiitu. ah oui parce que boo génnee boo gisee deux mille vingt et un ba léegi institution yi nekk Sénégal yëpp institution bi nga xam ne chaque jour bu nekk à la une des journaux mooy la justice. parce que dafa am ay dysfonctionnement kooku dañ ko war a waxtaanee ndax réew moo gis mu am stabilité. ñaar yi moo tax ma moo am stabilité mooy richesse ya fa nekk ñu séddale ko ci anam boo xamante ne ñëpp dañu ci jot seen àq waaye yoon wi nga xamante ne moo tiim nit ñi di leen laddanc te di leen corriger du am kumba am ndey du am kumba kumba amul ndey waaye day tëdd njaaxaanaay ndax dafa am ñett yoo xam ne ci am réew doomi réew mi dañ cee war am confiance mënut a ñàkk mooy la justice mooy waa réew mi dañoo war a wóolu seen justice xam ne bu leen attee atte lay doon boo xamante ne day tëdd njaaxaanaay du faral kenn du nekk au service d'un régime parce que ñun liñ dundoon euh, inquisition bi nga xamante ne moom la Pastef doon dund ba ñu rey ci ñun mbooloo mu dul jeex te amul enquête ba ñu laggal ci ñun mbooloo mu dul jeex te amul enquête. et la ba ñu jàpp loolu. incha allah ko bu ngeen bëggee mu leer mbooloo mu bari ci ñun. Mhm. incarcéré ñu de injuste. ci kaso yi am ci ñun ñoo xam ne dañ fa jóge am fa ay trouble psychologique am fa ñoo xamante ne dañ faa jële ay tawat yu ñuy traîné ba faw réew mi dafa soxla justice boo xamante ne da koy wóolu dafa soxla éducation boo xamante ne doomi réew mi soxla soxlawul di jëggaani bitim réew xam-xam loolu day dépendre ci politique bi nga xamante ne ëllëg ki sibir ñun doon jàngal ñoo ko war a incarné waaye day dépendre ci citoyen sénégalais bi nga xamante ne moo war a dem ci concert des nations war faa teewal Sénégal te war koo siggil ci xam beneen bi ci topp mooy sante santé citoyen yu nekk ci am réew dañoo soxla maanaam wóolu seen sante waa réew ba ku feebar am xel mu dal ci dem faju ci ñett yooye nag da cee am boo xamante ne moom la ñu teg tey di ko waxtaane gisuma lu gën a gisuma lu lu lu gën a efficient que ñu def ay assises waxtaane justice bi waaye ci ci ci volet bi ma nekkoon rek ci leadership ak xakma bi nga xamante ne moom la sunu kilifa yi doxe da nga gis ne bi président toogee rek li mu njëkk a def bokk na ca avant même le premier mois au pouvoir wala boog le premier mois de gouvernance parce que ñun suñu kilifa day bañ ko wax le un parti au pouvoir